kon mu demee ba ca kanam incha allah daañu jàllale numéro bi sama numéro téléphone ngir ñu ko yittewoo incha allah ci kanam tuuti danaa ko jàllale ñi mën ko am am na whatsapp incha allah waaye mu ñu demee ba ci kanam tuuti rek danaa ko jàllale incha allah ngir jaam yàlla yi mën ko jël ngir ku bëgg a déggante ak ñun. kon bu fekkee ne ñi nga xam ne ñaare néew doole ci wàllu sëy daf leen di sonal nga gis na ñii eh, lu demee ni wàllu jabet mën na leen sonal ba yóbbu leen ko ñii nga gis ne wàllu ndoxu siti mën na leen a sonal ba indi ci ñoom gàllankoor bu demee noonu eh, nga gis ne kii it moom jëm boppam maanaam ñaare foowe awraam ak yu demee noonu mën na koy yóbbee ba awraam di faral di dellu ak yu demee noonu wala it muy néew kàttan ci wàllu sëy nga gis ne kii rab mën na koy téye danga gis koo xam ne euh, dañ koy jox soxna yu mel noonu di ko gàllankoor maanaam rab téye ko nga gis ne moom mësta sentir lu mel noonu benn yoon ci moom waaye dafay am soxna rek mu mel ne lu ko téye muy dem fu nekk loolu rab dana ko def ci doomu aadama bi waaye am na ci ñoo xam ne seen fit mën naa ñàkk a toog waaye yu mel noonu di leen gàllankoor am na ci yoo xam ne it mënees na koo def ca ndaw sa maanaam liggéey bu ñu def ca ndaw sa ngir ku ko tiim doo mën a nekk ak moom loolu nag ñaar ab jamaane dana ko def wala ku yàgg nekk ak nit ba xëy rek maye ko maanaam mu topp xolam ba def yu demee noonu dana ko waral ñaari yooyu ki nga xam ne moom moo am soxna yu mel noonu ne ca boo ko bëggee saafara faaw nga boole leen ñoom ñaar mën a dindi lu demee noonu kooku it jotewut ak takk xale dara takk xale moom bari na ay yoon yu su ko mën a tekkee yaakaar naa moom def naa ci ay yu bari ba ci ginnaaw rek dañ ko ci tekki léegi jooni jooni ñaari am na ci ñoo xam ne tey bu leen jàppoon nga indi leen fii ci studio bi comme par exemple fii ma ne bu ñëwee boo neexee ba a ànd ak soxnaam ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala kooku moom am na ci ay secret yu am solo am na ci ñoo xam ne ci ginaar lañ koy dindee léegi jooni jooni ñeen ñi des koy dindi ci alxuraan léegi joni joni loolu lépp mbokk mi am na euh, waaye xam naa loolu taxut a jóg waxtaan wi maanaam ñi nga xam ne ñaare dellu euh, maanaam deme demee wàllu kàttan daal moo leen di sonal te ñu bari ci mbokk yi di ñu alerté di ñu woo ngir bëgg ñu di ci def waxtaan moo tax ñu di ci indi ay leeral ñu ci bari ni muy demee ci ñoom ak li koy waral ci ñoom waaye it am na ay sifaaw nag ay saafara yu ci am solo ba ci ñi nga xam ne yu mel noonu di leen di gaar incha allah boo may jàlle dinaa joxe sama numéro ku ma woo te yu mel noonu di la gaar incha rab rabbi bu fekkee ci rajo bi am na fi incha allah ci yu mel noonu boo ñu waxee na muy demee rek eh, incha allah na mu dikk ci ak na mu mel eh, bu jaree nga jaar fii ci rajo bi ñu jox la la nga xam ne moo koy saafara daañu la ko leeral incha allah wax na na nga koy jëfandikoo eh, incha allah lu mu ci mën di doon daal daañu la ci mën di ñu lay leeral kon mu ngi noonu bu fekkee ki nga xam ne ñaari ndoxu siti moo ko kooku ñaar lay boole bu dee faju ki nga xam ne it ñaare deltuwaay lay am dellu ginnaaw lay am ci wàllu awraam ak yu demee noonu walla ko néew kàttan kooku mbokk mi am na ci loo xam ne ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala boo ko ci jëfandikoo te lépp nag géntul génnul gàncax gàncax gi sunguf ak reen génnul alxuraanul karim te lu naturel la loo xam ne du indi benn lor du indi problème reen du indi dara mbokk mi lu amaam solo la ni ngay mëqe muraake mi mën nga ko ni mëqe incha allah te la wàññi dara kooku am na nu koy jëlee maanaam ndox rek lay doon euh, maanaam sunguf lay doon waaye danga koy segg tàngal ndox ba mu tàng di ko jëfandikoo ñaari ki nga xam ne deltu ginnaaw ci wàllu awra ci moom euh, ci demee noonu euh, mbokk mi kooku it am na noo koy jëfandikoo incha allahu rabbi loolu mën na saafaraw ba mu neex nga gis ne kiit dafay doon nit koo xam ne moom it dafay gaaw yegg lool waaye mu bëgg loolu it saafaraw kooku it mbokk mi ñaare am na tegtalam yu am solo yoo xam ne dana dundalaat si diid ya ba mu nekkaat fa mu nekkoon ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala moo tax ñaar dama koy faral di waxee jàngoro kenn du ko weer kenn du ko nëbb des koy weer mu saafarawu da ciy daal di am solo lool ñenn lu it lu demee wàllu hémorroïde moo leen di sonal ñaare jàpp leen ba indi ak néew kàttan ci ñoom loolu it dafay daal dafay dara ràññetle mbokk mi ci ñi nga xam ne yu mel noonu Euh, moo leen koy yóbbee ñenn ñi lu demee ni wàllu diabète comme ni ma ko waxee woon ñenn ñi lu demee ni wàllu ndoxu siti tamit maanaam dafay ñëwaat ci ñoom ki nga xam ne hémorroïde la kooku ñaari traitement yi lay boole incha allah moo cee gën kooku daal bari na nu muy dikkee ci nit bari na it koo xam ne rab moo koy jàpp di ko foweloo boppam ñaare mu dem ba dootul am kàttanu sëy nga gis ne ñaare mën na dem ba sax buy dem wanag wala muy wala muy tuur ndox nga gis ne maanaam Euh, dafay am lu génne ci kanam kooku it mbokk mi dafay am ci góor ñi mbokk mi euh, xam naa tey waxtaan wi xaw na kii waaye dañuy leeral rek ngir bëgg ñi nga xam ne it loo ci gis rek te am na saafara ñi nga xam ne yu mel ni da leen di gàllankoor te mënuñu koo jooy fu nekk ñi nga xam ne yu mel noonu da leen di gàllankoor te mënuñu koo jooy mënuñu koo jooy fenn di ko nëbb yu demee noonu déedéet mbokk mi jàngoro des deesu ko nëbb des koy weer euh, moom incha allahu rabbi yooyu yëpp lu neex a saafara la lu neex a neex a saafara la incha allahu rabbi ñu bàyyi ti xel kon ñu mel noonu ku mu gaarit mën nga ànd ak ñun ci 88 628 19 05 88 628 vingt 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 اغفر لأمته وارحم بأمتي واستر لها ونورا ربي الله quatre-vingt-huit ngay def 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 en direct ci seen rajo Baol Média mu mel ne li ñu dese ci waxtu ngir ñu tàggatoo bariwul kon damay joxe sama numéro incha allah ñu continuer waxtaan wi ba ca kanam incha allah ñu doog a tàggatoo.